asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa Sénégal ak domi Sénégal ñu ngi leen di nuyu euh, tey spécial euh, collaboration lañ def kewlo ak Cine News TV li waral moy un événement exceptionnel il faut une couverture exceptionnelle tey jii ñu ngi ci salon euh, Suite Beauté Spa bu Dakar bu ñuy fàttali salon bi nga xamné mo indi ciow lu mag li nga xamné mo senegal Sénégal ñu naan. Ousmane Sonko Defna, ani Adji ani Ousmane Sonko tax sommes en collaboration avec li nga Nous ne mooy euh, Senenews partenaire ñu dinañu euh, contrairement fu les journalistes yi di limité contrairement à la presse bi di limité nous, sommes def comme suñu nous euh, baax une enquête dem ba vérifier jox leen éléments pour la première fois ngeen gis sur ci télévision ak ngeen gis chaîne YouTube nous dellu sur le lieu présumé du crime moi y yëf yi xewee ñu leen ko expliquer premièrement comme vous ngeen ko gisee salon bi dafay nuro salon de coiffure yu bari yu Sénégal euh, salon yi fait lan de euh, li euh, def pédicure ak manucure mais surtout de l'autre côté il y a des produits de soins des produits de beauté des produits de massage spécificité bi salon bi am mooy de pédicure de def manucure de def lëtt mooy coiffure mais it li nga xam ne massage massage bi nak motax ñu gëna xam tay salon bi fi nga xam nak moy mooy euh, fi yëf yi xewee ak lan moo indil wax ji loolu la ñuy jël temps ñu jox leen en détail pour kenn ku ne mu mëna joxé li nga xamné moy mooy xalaatam première des choses wax nañ leen ni amone na caméra de surveillance yo xamné lepp lépp lu fi xewoon wala ku fi duggoon dañ la filmer li sama gauche moo di entrée principale au salon bi mu la ñuy tijji parce que salon bi en même temps cœur la

gannaaw bu nu jógee ci fi nga xam ne mooy salon bi mooy salle bi nga xam ne fa la ñuy defee euh, manucure foofu la ñuy defee su euh, euh, coiffure ak pédicure. gannaaw bu nu jógee ci salle bi nga xam ne la ñuy defee pédicure ak coiffure fii la ñuy defee soin de visage comme ni ngeen koy gisee diggante bi benn paala mat un mètre mooy différence li xew ci salle bi nga xam ne mooy salle de coiffure bi ak fii di soin de visage. bi coow li jógee ñëpp dégg nañ ko. Nous avons nañu maison clandestine la ñi un nañu bordel ñi avons nañu sax ay mais contrairement li nga information parce que lu clandestine defe naa ni euh, lii nga xam ne mooy avis bu am seen quittance am euh, registre euh, de commerce war na war a ni donc information boobu baaxul parce que lii maison la boo xam dafa am pignon sur rue nekk fii contrairement lu ñuy gëmloo ñu bare bare bare ay kilifa yu bare dinañ ñëw parce que du lenn loo xam euh, dafa nekk en clandé en clandestinité boole ci contrôle corps de contrôle yu état yi lu ci bari dinañu wàcc si kër gi pour vérifier comme ni ngeen ko gisee ci régie de commerce bi ngeen xam ne moom lañ leen jox euh, bokk na ci muy muy massage muy euh, soin de corps muy coiffure ak yeneen aspect yi nga xam ne moom la ñuy def fii ci kër gi ngeen ko buntu bi du tëju donc xaw ma par ban extraordinaire la la ñu mën a dugg ci néeg bi tëj ko ba mën a fa mën a def loolu nga xam ne moom la ñuy tudd mais comme ni ma leen ko waxee kër gi dafa am benn xale bu ndaw xale boo xam ne ñetti at la am te fu ne lay daw donc bu bunt bi waroon a tijjeeku ñu war fi mën a def dara xale boobu war na mën a daw à tout instant bu ñu ko xalaatee war na mën a jiixi jaaxa si xel yi mais beneen encore événement bu bu bu doy waar comme ni ma leen ko wone diggante fii ma taxaw ak buntu entrée principalu kër gi matul 5 mètres boole ci matul 2 pour ñu entrée wu salon bi ba léegi dañu nekk ci salle bi nga xam ne folo la yëf yi xewee chaise bi ngeen gis chaise u accompagnant la pour won leen ni la plupart bu ñu def massage nit ki bu ñëwee ak jabaram wala mu ñëw ak njabootam nit ñi fi la ñuy toog ñu fekkee mais lu extraordinaire encore am na ci kaw Ousmane Sonko témoignage bi nga xam ne soxna si joxe na ko mais it ñeneen ñi nga xam ne euh, mës nañu maase Ousmane Sonko parce que bu ñu waxee Adji Raby Sarr bala Adji Raby Sarr ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñiko ko les témoignages sont unanimes dañu leen defal ben reconstitution pour won leen ni Ousmane Sonko ci ban sens lañ ko daan maase fi ci biir euh, salle la plupart du temps comme ni ko borom salon bi waxé Ousmane Sonko bu ñëwee fi ci Spa Dakar Beauté li muy def fay tok ci chaise mu joxé li nga xamné moy ginaawam pour nu maase ko mais li nga xamné moy mooy euh, soxna si di euh, Adji Raby Sarr wax te it borom euh, këru euh, Ndeye Khady wax ko keroog bi Ousmane Sonko ñoy position bi le teudé té souvent buy tëdd day jël yëreem mu daliko di ci kaw bopp bi pour ñu mën ko gis li muy def moy teud ñu defal ko massage bi li nga xamné moy ginaawam parce que lolu mo koy metti buntu néeg bi ñu nek ni buntu néeg bi ñu nek ni mooy euh, deuxième cabine bu am jacuzzi te it it massage la Ndeye xadi keroog bu muy wax ni Ousmane Sonko bu ñëwaan day tok ci chaise pour def massage bi fameuse chaise boobu ci biir néeg bi la nek ñu and ak yéen won len ko. li nga xam moy mooy euh, deuxième salle de massage salle jacuzzi bi ñu ngi foofu te moy li moy position bi soxna nday Khady yi doon wax Ousmane Sonko diko def tout le temps manam bu ñëwee position bi lay tok yëkëti yére bi teg ko ci bob bi mu daal di joxe li nga xam moy mooy pour nu maase ko bien que fi, amna table de massage amna jacuzzi tayit amna benen chaise bu ko defee la plupart du temps ñu doon ñëw en famille la ñu ñëw wala jëkkër ak jabar bu ko defee ñu defal len massage mais kenn du len bàyyi ñu nek en intimité seul fi, lu fi nek moy massage moy le bien-être. maa ngi taxaw ci buntu salle bi nga xamné ne fa la yëf yi ne fa la xewé digënté bi ak néegu euh, ndey Xadi ak borom kërëm mu ngi nek ci un pas deux trois pas pratiquement buntu bi yit gis ngeen ko tëjuwul à moins que ñu xëcc ko donc trois pas mo dox euh salle bi nga xamné fa la massage bi doon xewé ak li nga xamné moy mooy néegu xadi